salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey ñëwaat nañ fii ci Parcelles Assainies unité ci dépôt gaz bi ñëw seet si ku yàlla baaxal ku yàlla may xam-xam di Serigne Abdou Ridial ñu ngi koy di ko màggal tey nag dañ kaa seet woon ñëw moom ci émission xam-xam aqiqatan ñu dalal ci sunu gan gi ñu bàyyi ko mu nuyoo wax ñu la ñu indil ci bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu rawatina mbokki taalibe yi. di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbakke moom sëriñ Basiiru di ko ñaanal suñu borom may ko fan gudd ba mu eggale ay naalam ci darajay lislaam te ñu ànd ko ak moom di leen nuyu bu baax yéen tamit ci nii ngeen def déplacé wu ñëw fekk suñu fii ci parcelle unité 6 di def dépogage bi fas yéene waxtaan ak ñun ci wàllu xam-xam ñu leen ciy sant bu baax a baax waa sëñ bi tey nag ci point bi ñuy njëkk a dugg ak yow mooy maanaam ci wàllu nit ku tëju nit koo xam ne dafa tëju wërsëgam demeewul noonu te maanaam ay jamono daanaka amoon na wërsëg jékki-jékki wërsëgam demeetul noonu daal maanaam nit koo xam ne daal dafa tëju ci loolu la ñuy njëkk a dugg ak yow ci point boobu noonu te dégg nañ ne maanaam ku ci jëflanteeg yow moom daal dina am loo xam ne ni wax dëgg yàlla dina kawe njortam waaw ñu dellu santaat yàlla bu baax ndax doomu aadama moom li ko mën a tëj dafa bari te yàlla suñu borom bindul kenn pour teg la fitna saa boo xamee ne la nga daan am amoo ko wala sa wërsëg mu ngi commencé wàññiku rek gaawal nga dem seeti borom xam-xam ndax li ko mën a waral dafa bari nit cat dina ko jàpp wakun muhisan lana min sarri si asadin masarri famin wa sarri xayni yàllaaw loolu sëñ Tuubaa ko bind wakun nekkal muhisan lana dinu musal min sarri si asadin ci ayu borom ak añaan masarri famin ayu gémmiñ lay wax mhm. wa sarri ni ayu bët lay wax kon ñaari ay yooyu ñoo mën a gàllankoor nit moom la olof di wooyee cat cat nag bu jàppee nit dana ko yàqal ay relation dana ko yàqal wërsëgam bu fekkoon ne ku ñuy dégg la itam nit ñi di am ci moom yaakaar bu yoroon milliard sax day jékki-jékki loola di ruus di ruus di ruus ba mujj day sàkku ndimbal ci nit ñi loolu am na kon képp ku mu dal boo ñëwee fii ci ñun incha allahu rabbi buñ ko xoolee ba noppi ba xam ndax nit ki mënoo koo faj mënoo faj tawatam te fekk xooloo lan mooy mënoo faj mënoo ko jox saafara fekk xamoo luy tawatam bu dul loolu rek da ngay làmb te ñun loolu duñ ci nekk képp koo xamante ne bi daal am nga jafeñ-jafeñ ci sa wàllu yaram nga doon doxal ba yàgg say affaire taxaw boo ñëwee fii ci Serigne ab duggee suñu borom dana la saafara ndax loolu fajal nañ ci ko ay nit yu miraaran yoo xam ne mun ne si koo lim loolu moom lu wér la loo xam ne mi ngi fi incha allahu rabbi kon daal mën nañoo dégg daal ne maanaam wax dëgg yàlla képp koo xam ne da ngaa tëju nga bëgg ubbeeku bu ñëwee fii suñu borom bi dina ko defal lu kawe njortal bu wér ndax fii li fiy ubbee bari na yiñ fiy ubbee itam bari na ndax alxuraan ñun ci la ñuy liggéey 6666 aaya 114 saar junni yow ma juróom-benn fukki isib foofu fi la suñu xam-xam yem loolu nag képp ku mënta ubbi dara dut la ubbi alxuraan ku mënta ubbi dara dut la ubbi boo ñëwee fii ci ñun nag ñu xoolal la cat jàpp la yoon yi nga xamante ne bii ci la ñuy ñaanal doomu aadama pour mu am wërsëg xam nga wërsëg am xaalis ak alal du benn am na ñoo xam ne bu ñu amee 10 000 francs ñu ngi xaalis te mm-hmm. xaalis ak alal du benn alal mooy loo xam ne da nga ci mën a dimbali sa bopp mën a dimbali ñi la jege loolu mooy alal xaalis nag bu ko nit ki amee boppam rek lay mën a faj lay mën a saafara mooy mënal boppam boo ñëwee fii am na yoon yoo xam ne boo demee jàng suratu fatx yi wax naa ko ba tàyyi danga fekk ca jeexital wa benn saaro al aaya boo xam ne mu ngi tàmbalee ci muhammad rasulullah muhammad rasul alquran ñeenti miim la am ñeenti muhammad la am laa bëgg a wax ñeenti muhammad yooyu muhammad rasulullah makaana kaana muhammadin ala aba ahadin min rijalikum ak xala muhammadin bi nekk ci saaru muhammad ak ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatim nabiina wa imaamul mursalin ak muhammad rasulullahi ak ma kaana muhammadin ak xala muhammadin ñeenti muhammad yi mu ne ci alquran képp ku tëju boo ñëwee fii buñ ci jaaree ak yow insha allahu rabbi say mbir dina ubbeeku dañ la dégg ci ci alal bu soobee yàlla waaw kon ñun ñoo ko déggandoo yéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla seetlu ngeen ne seen wërsëg dafa wàññeeku wala ngeen gis ne da ngeen tëj wala li ngeen daan am amatoo leen ko ñëw leen seet fii nii mu defal leen ne ñaan ngeen am ci lu kawe seen njot sëriñ bi dañuy dem ci deuxième point bi deuxième point bi maanaam mooy koo xam ne bërëbu liggéeykaayam ba mu nekk maanaam seetlu na dañ ko fay xeex wala maanaam nit koo xam ne am na métier mën ko lool aay ci lool waaye wax dëgg yàlla mënul toog ci benn barab wala ut na métier ba sonn fu mu liggéeyee ba sonn kenn mënu kaa jël yooyu tamit dafa nekk saafara soo xam ne ni wax dëgg yàlla nit ñi ñoo ne woon nan la ko laaj parce que bëri nañu mu daal waaw xam nga doomu aadama moom bu dee wut dara te mënu koo jot rek fekk na am na lu xew ci moom am na lu ko téye kon loolu li may waxaat rek mooy mu dem ci sëriñ boo xam ne am na ci moom yaakaar mu defaral ko yaramam <coughs> ci wàllu cat ndax lépp loo ñàkk rek cat moo la ko nit moom lu mu ñàkk rek li feek yaa ngi dund rek am nga wërsëg léegi naka ngay def ba jot ci nag mooy sa yaram mooy tilim bu sa yaram tilimee nag boo demee ci ko xam asraar mm-hmm. jàng anasir xam tabian bu baax a baax bu la bu ngeen jëflantee rek incha rab bi parce que tamit rab day def loolu tamit te bu jàppee nit daf koy solo solal mbubum perméable bu batin nga xam ne boo demee ci sëriñ boo xam ne xamul dëgg-dëgg mbir mi bu la joxee saafara boo sangoo doo ca am benn benn njëriñ doo ko ca am nga ne sëriñ ba daf maa nax fekk naxu la lam la jox baax na waaye lu toj lu lu xotti mbub moom ba nga xam ne boo sangoo mag sa yaram loolu la jàngul loolu foofu asraar dafa xóot asraar dafa xóot da ngay gis ko am secret yu wér ci rab di ci faj du faju gis koo xam ne day am secret yu wér di ci faj muy faju fekk na daa am loo war a njëkke su bopp dee metti ngay faj tànk saafara du mën a am foofu kon képp koo xam ne loolu dal na la boo ñëwee fii ci ñun incha allah danañ la dimbali bu soobee yàlla kon ñu daal ñëw ci troisième point troisième point bi mooy wàllu këyit pour wàllu tukki waaw xam nga loolu tamit li ma ciy wax rek mooy am na benn jaaro bu ñuy defar boo xam ne eh, ñu ngi koy wax xulóobul xalaayiq jaaro bi ñaari façon jaaro la ñuy defar am na boo xam ne dañuy woor ñetti fan ci wàllu kayit la jëm ak wàllu wërsëg ak ki nga xam ne dara du toog ci loxoom wala ki nga xam ne day am xaalis mais du mën a dajale dara du mën a defar dara am ñi nga xam ne dañoo tukki lu yàgg yàgg yàgg bitim réew te mënuñoo am dara ñooñu tamit bu ñu amee jaaro boobu yaar bi dina leen dimbali ci seen wàllu wërsëg ba lu ñu amati dina toog incha allahu rabbi ñaareel bi mooy benn sangaay la boo xam ne dama koy defar moom boo demee ci suuratu fatxi ba tey da nga fa fekk muhammad rasulullahi wala siina maahon asida waxanal kufaari ruhumahu baynahum darahum ruka an sujudan ila axri aaya ba aaya bi jeex am na nuñ koy liggéeyee boole ko ak wala xadd karam naa banni aadama wa amal naahum fil baxri wal baxri wa rasax naahum min baat yi ba mu jeex ak leneen lu muy àndal yoo xam ne ko liggéeyee dañ koy suul boole ko ak or ak xaalis ak benn guro ak sungufu bërwér ngel ak beneen secret boo xam ne xam nga secret di su ko weer waaye kon ma mën a wax ni lii ak lii ngay boole waaye dafa am yoon boo ko suulee juróom-ñaari fan ba ba juróom-ñetteel ba nga koy sulli di ko raayoo bu fekkee ne alal rek moo la tax a jóg te nga teg te nga teg wutiin wa ci yoon insha allahu rabbi di nga am lu ñëpp di yem loolu benn la am na boo xam ne ñu ngi koy wax wallu mag wallu mag tamit mag ñoo ko xamoon nañ ko bu baax ki nga xam ne daa bëgg a bari ay xar wala ay nag wala ay da ngay gis gétt goo xam day am juróomi téeméeri nag wala ñeenti téeméer dañuy daan liggéey loolu ba pare jël ca kawar googee sotti ca di ko sangoo yow mi nga xam ne danga nga bëgg a bari alal nag dangay jël benn béye xaalis béye ba nga gën a bëgg moom ngay jël dugal ci biir di ko sangoor bu soobee yàlla béye boobee nga ci dugal dana la dikkal ba nga sant yàlla loolu tamit lu wér la ñi ngi ci jëflanteel bari na ñi ngi sant yàlla yooyu yëpp daal ay mbir la yoo xam ne xam nga alxuraan kenn mënu koo jël li nga xam lébbit mënoo koo wax ci ay minute waaye képp koo xam ne yàlla dogal na sa wërsëg war a jaare ci suñu loxo buñ jëflantee incha allah incha allahu rabbi sa yokkute dina am incha allah waaw beneen bi nga xam ne nag mbokk yi seen jëm bopp nag ñoom ñoom ñoo ko bëgg di ko laajte saa su nekk nag mooy wàllu impuissance waaw impuissance impuissance muy wàllu impuissance góor goo xam ne maanaam da nga mënoon mënatoo wala koo xam ne maanaam dangaa tële waaw impuissance ay façon la am na ñoo xam ne dañoo impuissance am ñoo xam ne dañoo am faible sexuelle am ñoo xam ne dañoo tële complètement tële nag ak néew doole ak euh, euh, du benn ki tële moom mooy ki mënatul dara ki néew doole mooy mën na dara waaye dafa dul yàgg loolu ñaari façon faj laa ci am ku bëgg ñu defal la jooni jooni nga dem naan jëfandikoo ko tey. ah jooni jooni. wallaahi ku bëgg ñu defal la ñu jox la tey nga dem am résultat tey waaye nag loolu du la faj. Mhm. du la faj ku bëgg tamit ñu jaar ak yow ci yoon bi ba mu wér incha allahu rabbi mhm. ñaari façon yooyu la yow yaay tànn boo bëggee am daar daar ñu defal la mais loolu du la faj boo bëggee nag ñu faj la ab traitement la. loolu moom mi ngi fi incha allahu rabbi bu yàgg xam nga faj kenn du ko àppal mm-hmm. ndax yow da ngay faj waaye kii wéral mooy yàlla suñ borom mm-hmm. yàlla nag boo ko wéeree sa mbir doo nangu di appal kenn mm-hmm. waaye nag ci kattanu suñu borom mboolem ñu fi jot a jaaral daal gën kaa yàgg daanañu am ñaari semaine wala semaine nag lu topp suñ borom jox leen seen kattan nañ ko amee woon kenn du ko appal nag looloo tax yeneen ñaar yi tamit dafa sonal askan bi trop muy wàllu hémorroïde ak ndoxu siti te daanaka ñëpp nee nañ ñoo bokk ñoom ñaan ñoo bokk seen benn reen. waaw nit mënut a am ndo hémorroïde fekk amul ndox siti. mënut mm-hmm. a nekk koo dégg mun a am naa hémorroïde rek ndoxu siti la am ndax ndox siti mooy ndey jàngoro yi kooku moom liñ ci am ci résultat am mënee su koo mënee su koo wax loolu moom du du faj sax gone yi ñuy jàngal faj sax mën nañoo faj ndoxu siti loolu moom du ñun suñu mission dëgg-dëgg mooy. ki nekk ci jafeñ-jafeñ wala ki amoon ba amatul wala ki nga xam ne mu dafa doon jàmbaar loolu ci liggéey nekk ci àll bi di tuñ tuñi ngir ay njabootam mënta fexe ba am dara mm-hmm. kooku daal bu ñu jëflante incha allah rabbi dana am lu mu jàpp bu baax a baax ba xolam sedd incha mm-hmm. allah kon daal mën nañ ne wàllu ubbi wërsëg daal suñu borom baaxee na ci loo xam ne nii maanaam te wax dëgg yàlla ñi nga jot a jëflanteel ci ñun ñëpp ñëpp ñëpp koo ci wax benn kàddu gi la lay wax wax dëgg yàlla kon daal dañuy rafet njort bu baax a baax ne maanaam képp ku ñëw fii sa wërsëg tëju woon mm-hmm. waaye la nga wax dëgg yàlla boo ñëwee fii di nga gën a doolee sant yàlla bu baax a baax a baax ñuy laajte tamit baaxam sëñ bi maanaam da dox ci wàllu nopp ci maanaam koo xam ne danga nga bëgg a fas benn soxna te yéen ñaar seen diggante xawut a demee noonu nga bëgg kaa nopp waaw xam nga ñun nag du liggéey kenn du liggéey kenn mhm. ndax ñun alxuraan lañ jàng te ay doomi soxna lañu tamit mhm. am na loo xamante ne bii boo fa nekkee eh, am foo xam ne fa nga bokk boo ko defee dafay nuru ak njabar am na nag fu lislaam maye nga boole ñaar muy noob noob mooy boole ñaar rek wala boole mbooloo euh, noob li muy tekki liñ ko fi ñu koy defee rek mooy ñaar ñoo xam ne ñaari way dencante lañ te seen diggante neexul ñooñu mënees na leen a boole bañ nekk benn moo xam muy kenn moo xam muy kër gu am coow ñii di dibbantey tànk ñii di tamante ñii di suul fii ñii di kii bu ñëwee mën nañoo jël ka ca jiitu jiital ko wa ahtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu jàpp leen ci buumu yàlla gi te bu leen taxalikoo loolu la yàlla wax foofee nag ci aaya boobee fa la ñuy jaar boole leen bañ nekk benn kër gi neex ñëpp am jàmm incha allahu rabbi waaw te ñu kon dañuy ñëw ci dernier point bi maanaam nit ñi nga wax leen yóbbulu bis bi xool leen di baax ci bis bi ak ci guddi gi ñu ci weer wi ñu nekk muy weeru gàmm gi tamit waaw liñ ciy wax mooy rek weeru gàmm moom daa doon weeru màgg woo xamante ne bii rawatina waxuma sax bis ba waaye weer wi ci boppam day Sëñ Tuubaa wax na ci lu bari laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyabi yi mahwi tahabi waa toxru si taxasumi dem na ba ca biir mu naan koo xamante ne bii joxe nga ci aw ñam lu mel ni yàpp wala suukar wala ñam wu suukar sax mel nga ni ku fekk woon badar fa innahu kab man xadar yow ma wa sabar wa yow ma badrin wa nasar xayral wara mu fahim xeex badar ba gañ a xeex ba ku ci joxe loolu la wax ku ko màggal guddi joxe ci aw yàpp bi euh, suukarin aw laxami nga joxe ci yàpp wala wu saf suukar mm-hmm. am nga yool boobu kon xam nga bis boobu lu mag la mm-hmm. kon nag buñ ko yemale ak bis yi ñu daan romb ak bis yi nga xam ne bis bi topp ci bisu gàmm ak bis bi ko topp ak bis bi bi ci ginnaaw buñ ko yemale ak bisu gàmm bi bis bu mag la ci suñu borom bis bu mag la ci yonente bi mm-hmm. nañ ko màggal ci sunna tax si mooma bi sunnati yaxuudunaa lil jinnati bi ihtiyaadil minnati li mox la sin moxasim yal na ko yàlla defal nangu euh, liñ ci jaamu yal na ko yàlla nangu yal na ko yonent bi nangu yal na ko Serigne Touba nangu barke Cheikhuna Cheikh Ahmadou Khadim jërëjëf yéen a ko déggandoo tey suñu yóbboon bis baa ngoogu ñu leen di dox jot di daje ko beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu